bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin yi tey mooy sunu jotaayu ñaar fukkeel ak ñett ci sunu tafsiru jusu amayata démb xam ngeen ne yemoon ci suratul maa'un muy araayta alladi yukadibu biddiin tey noo ngi war a tàmbalee ci suratul kawsar al kawsar nag boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax ci lu muy firi waaye al imaamu Saadi ak boroom xam-xam yu bari dañu wax ne al kawthar moo di al xayrul mooy yiw wu bari yiw wu bari yiw bari nag lépp day daal di day daal dugg ci biir am na ñu ne al kawthar mooy yónni gi ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñu ne mooy lislaam waaye loolu lépp du génn yiw woo xam ne yiw wu baree bari bari lay doon. Euh, teewut ne ñu am na ak dex dexu yonante bi alayhi salaatu wasalaam muy xawdu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ak dex la koo xam ne gu jégg day wala ci kiimaane ñu wax ne julli ñi danañ ca naan képp koo xam ne amoon nga ak ngëm waaye képp koo xam ne wattandiku woon nga topp bidda ak bokkaale yàlla sa borom tabaraka wa taala moo tax bismillahi rahmaani rahim mu ne innaa naka nun yàlla day aataynaaka jox nañ la alkawthar kawsar moo di yiw wu bari yiw lépp dugg na ci biir wala aw al kawsar ndexu kawsar ñu jagleel la ko bis penc ba nga war caa naan yàgg sa xeet wi su boobaa nag fa salli na nga julli li rabbika ngir sa boroom na nga sellal sa jaamu yàlla def ko ngir yàlla wan xar te nga loj te boo demee bay deret nga def ko ngir yàlla loolu li ci dégg rek mooy bari na koo xam ne ma ngay def ak luy nur ak jaamu yàlla te defu ko ngir yàlla bari na ko xam ne ma saraxe wala muy def yeneen mbir waaye leneen la ci jublu nag yeneen mbir la ci jublu du ko def du ko sellal ngir yàlla wala sax mën naa muy julli wala muy def leneen fekk ma ngi ci jublu ngir ngistal mu ne ko yow nag fa salli li rabbika booy julli def ko ngir sa borom wan xar li rabbika ba dee bay tuur deret it nga def ko ngir sa borom tabaraka wa taala bari na kuy tuur deret ngir geneen anam ngir ay rab wala ay jinne wala ay nàngam wala neexal ay xambam wala yu mel noonu looloo ko tax a loolu bokk ci bokkaale yàlla li yi gën a mat a wattandiku te nit ñi tàmm ko lool moo xam rendi ginaar rek da ngay boo ko rendee def nii leer ci def ko naa lu ñu dugg ci ndëpp yu bare bari di dugg ci buntub euh, bokkaale yàlla saa borom tabaraka wa taala suñ borom di ko tontu ne ko inna shaniaka naka kii nga xam ne daf laa bañ huwa moom al abtaru mooy ki yara dal dañuy wax ne aas ibnu wail euh, wail moo doon xas yonante bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne yonante bi daal dafa yaradal xam nga ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom da ko teg ay natt yu bare bari fekk jamono ji mu nekkee tuut tànk ku ne xam ne laataa mooy gane jamono la baayam génn àdduna bim jamono ba ay juróom-benni génn àdduna maama Abdul Mutalib yor ko génn àdduna baayam mu ndaw mooy euh, Abu Talib moom génn àdduna soxnaam moom it Xadijatu ci génn àdduna ci ay jamono euh, ñu naan yonante bi ñoom nag ñu ni mu xewee Sénégal léegi rek nga xam ne tey nit bu amoon doom mu faatu mu amaat doom wala mu am jëkkër mu faatu mu amaat jëkkër rek ñu tàmbali eh, am ay kàddu yu ñu koy sànni nga ne loolu duuful imaan mooy ngëm yàlla gooyof rek mooy waral pas-pas yu noonu saa borom tabaaraka wa taala nag dafa fonk yonante bi ba loo ko wax rek moom moo koy tontul ne ko as moom mooy koo xam ne li ñu tuddee dal mooy njabootam dog aw yiwam dog nee na kooku moom la dal waaye yow yonante bi sallallahu alayhi wa sa njaboot dogut de ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba fi mu toll nii dëgg la dooma yi ñu jigéen ñi daanaka seen dund euh, ak seen dundum njaboot daanaka taxul mu am solo lool ci wàllu ak ngirte ñu ci bare bare bari amuñu doom ña am doom doom doom ya daanaka euh, tabarkàlla taxut ñu am ak càlla la doomam yu góor yi moom kenn mëtu cee denc soxna sax nag moom waaye sayyidatuna Fatimatu moom yàlla dimbale na ko euh, mu am ak njaboot ba sërif yépp ci moom lañu ci moom la ñu soqi diggante digganteem ak diggante Seydina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma nga xam ne yonente bi ba léegi aw askanam ñi ngi fi waaye jullit ñëpp nag ci njaboot gi yonente bi alayhi salaatu la ñu bokk am njàngaleem aw turam mi ngi béel kon ba léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mbiram mi ngi dox waaye aas ibnu waa'il mii nag ñu faawu nit ki sax dangay ngay jàng doo ko xam aw turam doo ko xam ay mbiram bu dul loolu doo ko xam kon kooku nag mooy mooy al abtar mooy koo xam ne ca dëgg-dëgg nag moo yaradal li wala fi di wax naan ñàkk am njaboot nekkul yara dal waaye nag am njaboot goo xam ne daanaka taxut ñu am solo loolu ci dëgg-dëgg moom la ñuy wax yara dal